suñu wayjur Baay Sëriñ Abdoulaye Thiaw Laye xalif général de Layène maa ngi beral nuyoo Cheikh Mamadou Lamine Laye di ko moom ak njaboot gi yépp ñoo ngi nuyu mbooleem kilifa diine ak kilifay aada yi ñëw ci bés bi di nuyu mbooleem taalibe yi sëriñ bi maa ngi leen di nuyu ci turu président de la république président Macky Sall mi ñu fi yabal man ak délégation Bima-Andal. Nous ñu ragné ci ministre Abdoulaye Diouf maire de Yoff ministre Omar Gueye ministre Maïmoun Ndoye Seck ministre Ndey Saly Diop ministre Seydou Gueye secrétaire général du gouvernement andak adjoint gouverneur chargé du développement préfet Aline Badra à ak Khadijatou Traoré sous-préfet des Almadies Nous avons comme Nico Seydina Seydina président Abdoulaye Makhtar Diop Tazefek, délégation au conseil des collectivités territoriales sëñ Basirou Mbaké Diakhaté également ak Amin Tetal, du conseil économique social et environnemental sëriñ bi président Macky Sall mi ngi lay ziar di la ndokkeel ci bés bu mag bi ñi di fàttaliku wooteeb maam Seydina Limaamu Laay al-Mahdiyu alayhi maam Limaamu yàlla moo ko tànnal ñaari waajuram yu sell mu di maam Alassane caw ak maam Kumba yàlla def mu feeñ fii ci sow ci Yoff wax nañ ne mi ngi feeñ ci atum 1843 dellu ci boroomam 1909 dundam yépp nekk juróom benn fukki ak juróom benn lépp dellu ci turu yàlla bi nga xam ne mooy allahu muy tegtale nitu yàlla ba dundam gépp dëppoo ak turu yàlla mu nekkoon ku maandu ku dit ñi bàyyi woon xel jamonoog ndawam ba mu tollee ci liggéey daawul lekk lu araam dafa daan wut lu lew di ko lekk maam limaamu ku néewoon ay wax la te bari njariñ lool mu woote wootem bi ajiboo daay daaya laay wuyu ji leen wooteeb yàlla ni ko alxuraan waxe ci atum 1884 lépp looy woote ba mu am téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñett ba noppi di delleeku woote yàlla la ku amoon doxalin bu rafet na ab yarekat la woon ku juboo woon ak kilifa yi diine yépp bokk na ci li ko yàlla dimbalee mu feeñ fii ci capital bi kon mel na ni ku ko wuyuwul ci baatin wuyu ko ci zahir ndax ndakaaru mooy capitalu Sénégal njaboot gi mu fi bàyyi ka ca jiitu woon maam Isa ñuy sàmm li fi maam limaamu bàyyi woon ba mu agsi ci sëriñ Abdoulaye caw mi fi nekk ñu ñaanal ko yàlla dolli ko ak wér te bàyyi ko fii mu yàgg lool mbooleem ñi fi ñëw fay si bor moo leen fi indi ndax tariqa yépp maam limaamu waxal na leen loo xam ne ba tey déggatuñu ku leen ko waxalaat taalibe laayeen yi ku gis seen melokaan seen colin seen toogaay xam ne ñu ñu yar lañu yar boobu fay dalal suñu xel ci xew-xewi jamono yi ay nit di laqatu ci l'islam di xeb liñu mag ñu bax ñi bayyi won fi ci rew mi bëgg ñoo jangal benen l'islam sëriñ bi président mi ngi wat di fédali kolorem, ak yow ak njabootu layen gep mi ngi yeesal yéeneem mitam ci lepp luy soxla ci dekk bi ak njabot gi dana ci taxaw mom ak gouvernement def ci lu ci man-manam toll li nak taxna ba mi ngi sakku ngeen ñaanal ko ci barke borom Besbi bi yalla doli ko katan ak man-man ba mu agale lepp li mu yene ci barab du tedd bi ak ci biir senegal di sàkku yit ngeen dolli ñaan ba jàmm akuk déggoo ci suñu biir gën a yaatu gën a sax jàmm jooju ak déggoo soxla nañu ko ci suñu diggante ak jàngalekat yi grève bi mi ngi bëgg a yàgg te jeexital yu metti la nar am ci suñu doom yi te yaakaar nañu jéegu yi ngeen ci war a mën a def jëmmaleku ci ndax président lépp li nga xam ne lii mënoon na ko def ci ñoom def na ci bu doon suñu sago ñu ñaan ngeen ñaan ci jàngalekat yi delluwaat ci classe yi jàpp ci li leen président jox du tere ñu continuer laaj te xam ne président heure bu ko ko yàlla mën loo dina leen ko defal ginnaaw loolu coow li nga xam ne jamono yii muy mel ni luy xajale waaye politique yi moonte day wax ju nu waxoon la ba tënk ko ci atum 2016 coow li bari na président woote na pour ñëpp juboo ñëpp waxtaan te am nañ yaakaar ne am nañ yaakaar ne sa ñaan mën na ci def dara kon sëriñ bi ñoo ngi ñaan yàlla mu bay ñu fekkee waat déwén ak jàmm kenn bañ a manqué senegaal yokk lii mooy li nga xam ne moo doon suma kaddu bi ma waroon a yëkkati fii ci seen kanam ci turu njiitu réew mi maa ngi baalu ak ñëpp di baalu ak ñépp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu